abonner, partager, sem commentaire voilà kon euh, dafa am lu ma xaw a jaaxal tuuti ma di laaj maanaam may laaj daal li may laaj mooy maanaam sama téléphone dafa mel dañ ko message wu te yëguma ko wala li tax loolu mooy euh, boo demee ci TikTok bi daal dafa mel ne wax dëgg yàlla influenceurs yi baree baree baree bari daal Ousmane Sonko rek la ñuy dugal pass boo dugalee Ousmane Sonko nga fay fekk ñenn ñi ñu ngi wax naan voilà le 17 le 17 le 17. voilà maanaam daal ku jege daan nga leen gis sax ñu leen di publier yooyu noonu xam nga rek xam nga am na patriote yoo xam ne moom defante rek la ñuy def gis naa benn audio ba sax mi ngi déroulé voilà euh, ma nga cay wax naan ñun patriote yi defante lañ xam voilà defante <laughs> la cokaas la defante yow non Sénégal kenn kenn Sénégal c'est voilà moo tax man mu jaaxal man daal damay xool sama téléphone bi ma ne TikTok dañoo def message sur wala man maa def message wala lan la. voilà man daal fu mu ubbi rek loolu laay gis voilà Ousmane Sonko voilà le 17 Ousmane Sonko le 17 voilà beneen bi ci des tamit moo di euh, euh, lu jëm rek ci wàllu élection yi ba tey am na ci voilà euh, mouvement yoo xam ni wala coalition yoo xam ne ni ah wax dëgg seen tête de liste moom pour mu jàll du du est que dina leer parce que dafa am loo xam ne ni ngi ci ndoddam loolu nag dafa mel ni bëri xamuñu ko woon xam nga Barthélémy moom yàlla um kenn voilà nag ah yàlla war na ko jël responsabilité voilà wala waaye wala wala dañoo def seen sondage xool ne maanaam élection yi du baax voilà ñu daal di bëgg xam nga xëpp ci tabli euh, suuf non Sénégal a jëlee waaw man nag ñeen ñi naan wala comme Barthélémy kale nañ ko Ousmane Sonko dañ ko war di yàlla bokk na nag wax dëgg yàlla waaw voilà Barthélémy Dias nag euh, waa wax dëgg yàlla nelaw nañ tax taxul def noonu nag Barthélémy tamit moom mi nangoo doon tedd liste tamit wax dëgg yàlla nelaw wala dañ doon voilà wala doon doon nekk nii di fo ak Sénégalais wala qu'est-ce lu xew daal parce que yéen wóolu ngeen seen bopp coalition boobu kay wax dëgg yàlla nañ fa gis ñëpp kay kenn ko rek mën ngaa doon tedd liste nag Barthélémy moom wax dëgg yàlla bu fekkoon tey jii bëgg ngeen a def élection yàlla ñu ruboon xëy na nag la yoon moom xam na lépp lu mu wax rek dañ ci ànd ak moom ndax ñoom xam lool Sénégalais yi daal la ngi ciy wax rek saa su nekk voilà Barthélémy warta dem wala dafa nekk lu dem wala dafa nekkoon xam loolu lan moo tax ñu koy jël di ko def tedd liste wala ñenn ñi ni voilà ñoom dañoo ragal dañoo bëgg ta jàkkaarlook Ousmane Sonko ci géew politique bi waaye nag daa neexut Ousmane Sonko mu yor ay otoom rek di déroulé ci biir Sénégal di def campagne am <laughs> ak i karawaanam <laughs> waaye loolu garaaw na de ndax dafa xew maanaam fi mu toll nii Afrique wax yu baree baree baree bare faana lii di parti tuddee seen i seen i seen seen i mouvement yooyu Pastef ñenn ñi di jël exemple ci Ousmane Sonko saa su nekk mooy ay africain waaye dañuy wax ni chaque jour li la gën a jege rek doo ko xam voilà. waaye nga xam ne nekk ci waa euh, Afrique bi eh, wax dëgg yàlla ba a avancé comme Sénégal wax dëgg yàlla Ousmane Sonko rek leen di joxe référence loolu am solo la te loolu Sénégalais Sénégal moo ci amaat wala ndam ndax Ousmane Sonko Ousmane ñëpp la voilà Sénégal gii ñu nekk nag li fi ne moom yaa ma gën xam voilà moo tax des sa réew boo fi nekkee doo xam daanaka lu bare bare bare waaye boo génnee di nga xam dëgg dëgg dëgg Ousmane Sonko mais lan la liggéeyal Sénégal da nga koy xam mais tant que ci réew mi yow doo ko mën a xam am ñoo xam ne nga xam ne ay patriote lañ Euh, nangu ab dogal ba pare bëgg seen réew euh, dem moom xam nañ ko baax baax voilà kon daal euh, coalition yaa ngi noonu voilà coow li bari na ndax fële tamit boo fa demee ci coalition ñoom Macky Sall voilà Macky Sall dina ñëw du ñëw voilà loolu yëpp yaa ngi koy dégg dina ñëw dina dina ñëw wala wala mën a am daal mooy voilà Sénégal daal waaw du toxu du rando Sénégal yi fi nekkoon tamit voilà pare nañ daal pour élection bi moom incha allah rabbi ñoom xam nañ li def parce que dasaat nañ seen carte xaar yàkkam nañ kaa gis moom voilà kon yaakaar naa coalition yi daal euh, tool yi bari na voilà wax ji bari na trop waaye en tout cas daal seet moom soriwul voilà seet moom kenn ku ci nekk nag xam euh, euh, fan nga féete Sénégal wala fan la la Sénégal yi féete na xam xam nañ seen Sénégal yi féete waaye <laughs> a waaw kon yaakaar naan daal euh, lool bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kon nga rek Walf Sénégal daal tey leen indi loolu ñu ngi lay den bu ma euh, di leen joxaat seen wàccuwaay way abonné di partager di sem di commenter jaajëf